engagement yi nga jëloon yépp gis nañ ko ci Ablaye Wade gis nañ ko ci Macky sal ngi ñaan yàlla mu amaat parce que nit ñi léegi ñu ngi commencé yeewu euh, alors que moo tax ba nit ñi soo waxee politicien sax dañ lay jàppee ku nga xam ne moom ak dëgg du ñu ànd pour parler plus poliment donc je di il faut faire attention dañuy jël politique bi jël morale bi teg ko fële en tout pays alors que soo xoolee dans les grandes démocraties ils ne pardonnent pas par exemple soo jëlee lu mel ni États-Unis du ñu nangu nga leen di ñàkk wax dëgg ils te sanctionnent immédiatement mais en Afrique on est encore en retard sur ce plan je pense que jour jamono bu ñu demee ba nga xam ne politique lu nga xam ne lu ñuy naw la un politicien dañ lay respecter parce que dangay sàmm sa kàddu en ce moment je on va beaucoup avancer. Euh, euh, ci ci li mu jàllale cinq cinq. Mhm. daf ci am les alliances qui se sont déjà bu buñ dee xool li ci des bariwul muy le parti démocratique sénégalais ak la coalition Gëm sa bopp. tout à l'heure le mandataire bu Gëm sa bopp mi ngi wax ne ñoom dafa am fu ñu féetee muy l'opposition radicale est-ce que aujourd'hui euh, foofu lañ ko wax a teg c'est-à-dire que. quand on est de l'opposition radicale on doit côté du candidat de l'opposition qui mën nañu xaar mu dem peut-être rejoindre Amadou Ba ou quelqu'un boo xam ne c'est la même famille libérale oui je pense que gëm sa bopp il Bougane il a très cohérent depuis le début je pense depuis 2019 d'ailleurs quand ça, il a toujours été cohérent parce qu'il a toujours combattu système en tout cas man musuma yëg fu ma pactiser ak Macky ay discussions yi ko yëg donc su toogee ba léegi ne moom il reste dans l'opposition radicale mën nañ ko gëm munoo nekk fii combattre le système pendant des années jékki-jékki parce que on mille euh, Amadou Ba à la continuité mhm. nga wëlbatiku bàyyi loolu yëpp dem ànd ak ñoom ça me paraît en ce moment il va se discréditer mhm. dañ naan fii finalement finalement kii gëmul boppam or jusqu'à présent il a été sincère il a été droit donc je pense que li ko gënal li gën ci moom mooy mu continuer si voie boobu mais su demee fële je pense qu'il va beaucoup perdre au change mm-hmm. le PDS ils sont déjà divisés am na ñu nga xam ne nee nañ on parle de parlementaires de d'élus et cetera qui sont avec Amadou Ba ñeneen ñi les jeunes de l'UJTL ils sont avec Idrissa sec je pense c'est comme ça qu'on va continuer et sootul peut-être qu'ils vont s'abstenir parce que Karim aussi ce sera très difficile mu wëlbatiku ak lu mu yekk Amadou Ba yëpp euh, wëlbatiku nee na PDS soutenir Amadou Ba ça me paraît donc euh, paradoxal li mu koy yàqal mooy gën li mu koy defaral alors oui avant may jox Ndeye Fatou peut du une dernière question par rapport ak loolu mhm. euh, aujourd'hui ñu ci bari décidé guñu c'est-à-dire bu ma waxee ñoom ñaar ñoo ci gën a fës parce que mhm. ils représentent quelque chose dans ce pays muy le PDS ak gëm sa bopp mhm. en politique que yow analyste politique nga stratégie la wala dañu war a décider wu avant que ñu dem ci première tour bu élection présidentielle. Euh, bien xaar deuxième tour moom mooy moom mooy méthode bu baax bi. Euh, bon man ma cert ma quasi certitude mooy que euh, deuxième tour defe naa dina am. super favori. Amadou Ba coalition Benno Bokk Yaakaar. Bassirou Diomaye Diakhar Faye coalition euh, euh, Diomaye euh, président 2024 ñooñu ñooy les poids lourds donc comme deuxième tour day am je pense que ñu xaar si par stratégie moi si j'étais à leur place damay xaar ba deuxième tour parce que foofu la enchères yi di gën a yokkoo foofu la ñuy gën a am intérêt négocier au prix fort mais parce que déjà actuellement toutes les les les deux coalitions ont fait le plein pratiquement yaa a a beaucoup de mouvements de soutien à gauche et droite mais suñ demee ba deuxième tour def naa foofu la ñuy gën a mone seen kii parce que soo xoolee en 2000 euh, même ñu amoon ay un pour cent zéro virgule et cetera mais ils ont bien négocié Ablaye Wade allé les voir ñoom Mademba Sock et cetera et tout et même en 2012 Macky je pense que tous les autres candidats il les avait rencontrés même jigéen ñi ñoom am surtout Sow Sidibé ñoom euh, Diouma Dieng Diakhaté et cetera donc c' est en ce moment que tu peux négocier au prix fort pour que waa ji su mais mu jox la des trucs on a vu que après ñoom on les a recyclés yóbbu leen présidence ñi ñu name leen ministre et cetera donc je pense que attendre ils vont attendre je crois alors euh, doyen yaa ngi doon souligner sànq le caractère inédit de mhm. cette élection de deux mille vingt quatre mhm. euh, ma bëggoon laaj sa xalaat ci candidature yi profil yi mais aussi les discours parce que dañ daan dégg ci élection des discours yoo xam ne dañ doon attractif des discours poignants yoo xam ne électeur bi nga xam ne da ngay dajeek moom ci euh, mbedd mi sax boo ko ci interpellé mu jox la ci ay échange mais pour cet année y a un mais aussi euh, yaa a des candidats yoo xam ne boo leen dégloo est-ce que sax doo douter ndax ñoom mën nañu porte un projet wala diriger sa pays ndax amoo déception depuis le début de la campagne par rapport au discours mais aussi au niveau du débat Oui, bon, on peut. Euh, c'est vrai que pour certains, il y, y a, un peu de déception. Peut-être que date fixe fixée, d'Aflen bête, ils ne se sont pas bien préparés, mais aussi il y a des discours percutants. Man, quand j'écoute euh, Souma Degloku Melni Serine Boub, vraiment je suis ravi. Et puis moi, innovation mu Indi, moi qu'il décomplexe, ne jàngu ñu école française. Parce que Ham Ham, du école, tu de parce que Sénégal jusqu'à une date récente da ngay considérer ku jàngul euh, école rek kii jàngul non ils ont prouvé que on prouve que les meilleures au Sénégal ñu ñu gën a naw au Sénégal mais jànguñu français ay Sëñ Touba Maam El Hadj Malick Sy et cetera et tout donc moom indi na une donne nouvelle et puis il est très cohérent il sait où il va peut-être son expérience dans le privé dimbali na ko donc kooku man je l'ai bien écouté Anta Babacar Ngom aussi elle est très pertinente et une touche jeune Bon, ce qui n'est pas le cas d'un autre jeune, bon, je ne vais, pas, je vais citer son nom, oui. mais quand il parle, mm. tu n'as pas l'impression qu'il s'adresse aux jeunes, parce que dafa bëri lu muy waaraate. C'est qui Non, je je vous parle français. Donc, ñi ma gën a marqué, c'est c'est Serigne Bou, Anta Babacar Ngom. Boubacar Kamara aussi, il est très percutant. Mm. Il est très percutant. Bon, Diomaye, il a un problème d'allumage parce que, bon, c'est la première fois. c'est pas un tribun comme Sonko tu as il peut pas Sonko tu l'écoutes Diomaye c'est pas évident que tu l'écoutes peut-être euh, il est en apprentissage peut-être que su demee au deuxième tour il va se bonifier euh, Euh, communication bi ak lépp lu ci ak ak lépp ci. peut-être qu'il va se bonifier et que les gens vont l'encadrer davantage wax ko lu muy kii comme il est inexpérimenté xëy na mu amélioré wu. est-ce que temps bi gàttul. pour <laughs> gën ko joyanti ci wàllu communication. oui peut-être que il peut perdre des points avec oui, ça et moi j'aimerais bien même que au deuxième tour. Mhm. parce que man loolu laa gis deuxième tour. Euh, bien que mu am un débat entre les deux. les deux dont on dit qu'ils vont aller au deuxième tour moom ak Amadou Ba. Mhm. parce que y a autre chose aussi yu nga xam ne war nañ ko war nañ ko daganal au Sénégal tous les candidats vont font des stages euh, des font des Débat. sondages Sondage, font ouais. des sondages mais fii pourquoi amul sondage dañ ko war a comme ça ñu xam au fil du temps